Mm. nee na an amiril muminina Seydina Omar moom la njëkk a tuddee amirul muminin yonentu sallallahu alayhi wa sallam mooy xaatimun nabiyina Abubakar moom lañ daan dàkkantalee xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Omar nag moom a tuddee amirul muminin ne jëlee buuru jullit abi xafsin dàkkantalam la mm-hmm. am na doom ji ñoo xafsatu yi mm-hmm. soxnaa yonantu sallallahu alayhi wasallam di suñ ndey umar mm-hmm. ibn umar ibn al-xattaab yéen ji seydna umar radiyallahu taala anhu qaala mu ne sami'tu rasulallahi man de dégg naa yonantu sallallahu alayhi wasallam yaqulu muy wax ne innama al a'malu naka jëf yi bi niyaati ñu ngi ci yéene yi mm-hmm. wa innama li kulli imri'in mm-hmm. naka ñeel na cam su ne ma nawaa mm-hmm. fa man kaanat ku nekk na hijratuhu gàddaayam ilallaahi jëm ci yàlla wa rasuli akub yonantam fa hijratuhu gàddaayam ilallaahi jëm na ci yàlla wa rasulihi ak yonantam wa man kaanat ku nekk ne hijratuhu gàddaayam li duniya ngir àdduna yusibuha góg dana ko jot aw imraatin ba jigéen yankihuha góg dana ko takk fa hijratuhu gàddaayam ila ma hajara jëm na ca lam gàddaay ilayhi jëm ca moom mu ne xadis ji nag rawaawu solo ñaari ilimaani way xadis yi ku njëkk ki mooy abu abdullahi dàkkantalam la baay abdullahi nu muhammad ibnu ismail doomi ismail ibnu ibrahima doomi ibrahim ibnu mugira doomi mugira ibnu bardasba doomi bardasba al buxaari dëkk ci dëkk bu ñuy wax buxaara wa abul xuseyn ak taalibeem ba abul xuseyn nu mu tudd muslim ibnul xajjaaj doomi xajjaaj ibnu muslim doomi muslim al qushayriyu an naysaburiyu naysabur la dëkk fi saxiixayhima ci seen ñaari saxiix yi muy saxiix buxaari ak saxiix muslim alladayni ñaar yi nga xam ne huma ñoom asaxul kutubi ñoo gën a wér ci téere almusannafati yuñ taalif saa yoo gisee ñu ne muttafaqun alayhi rek mooy buxaari solo na ko muslim solo ko ñoom ñaar luñ bokk solo rek dañuy wax ne luñ dëppoo la ci ak wéram dëppoo la ci ak wéram ndax ñoom ñaar ñëpp dëppoo nañ ci te seeni téere ñu gën a e, wér ci téere yuñu ñu taalif buñ ne téere yu ñu taalif na alxuraan génn na da alxuraan duul taalifu mbindéef yàlla ko wàccee ñoom nag ñu taalif téere yi dajale ci waxi yonantu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam xadis ji bokk na ci xadis yi nga xam ne dañoo boole ndax yonent moom la yàlla jox jawaami al kalimi ak faslal xitaabi baat yu tuuti lay wax dajale ca maani yoo xam ne mën nga caa bind ay volume ciy téere lenn ci borom xam-xam dañuy wax ne ñeenti xadis ci la lislaam yëpp daje bu njëkk bi mooy xadis ji innamal a'maalu binniyaat ñaareel ja mooy xadisu innal xalaala bayyinun wa innal xaraama bayyinun xaraam bu ca nekk leer na ñetteelu xadis ja mooy xadis jay wax izhad fi ma fi aydi nnaas yuhibbuka nnaas dëddul li ci loxo nit ñi nit bëgg la xadis yi gën naa gudd noonu dëddul li àdduna yàlla bëgg la dëddul li ci loxo nit ñi nit ñi bëgg la waaw koo gën a soxla li mu yore rek ngeen am problème waaye nit bu fekkee loo am jox ko te lu mu am soxla woo ko du ngeen am problème ñeenteel jamin xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaanihi bokk na ci rafetuk lislaamuk doomu aadama bi mu bàyyi lu ko concerné wu lépp ku loo xam ne jubluwut ko xamuloo ko njëriñ du ca ne am na ku ko woy ne umdatu diini indana kalimatu arbaun min kalaami xayri lbariyati ittaqi shubuhaati wazhat wa daa ma laysa yacniika wa amalan bi niyati waaw diine yëpp daje na ci ñeenti kàddu yonantu yi sallallahu alayhi wa sallam mu njëkk mu ne ittaqi shubuhaati mooy xadis ji wax ne lii xalaal leer na li xaraam leer na li ci diggante bi mooy li lënt te li lënt nag ku ko wattu mucc ñaareel bi mu ne washat wa dama laysa yaaniika washat mooy dëddul àdduna yàlla bëgg la dëddul li ci loxo nit ñi nit ñi bëgg la dégg nga bi ci mu ne wa da ma laysa ka mooy min xusni islaamil mari tarku ma la yaani mm-hmm. wa amalan bi niyati mooy innamal amalu mm-hmm. bi niyati mm-hmm. innamal amalu xamal ne jëf yi bi niyaati ñu ngi ci yéene innama adaatu xasr la maanaam njëfanduk dafay saxalal atte la ca topp di ko dàqal la ko jiitu innama mm. dafay saxalal atte lépp lu topp ci moom mm. di dàqal atte la ko jiitu mm. su ma ne eh, laysa laysa laysa laysa laysa alqawiyu bi surati mm-hmm. am doole mm-hmm. du mooy koo bëreel daan ko mm-hmm. bu fekkee da nga wax loolu nga teg ci ne innama shadidu innama shadidu man yamliku nafsahu inda alxadab ki am doole dëgg mooy ki mën a téye boppam fekk ma nga mer kon dàqal nga ne ki bëri doole bay daane nit ñi kooku dëgg-dëgg amul doole daq nga doole ci kooku saxalal nga doole li ñëw ci gannaaw innama kon nag boo ne innamal amalu kon jëf yëpp nag dañuy dugg dootuñ leen considérer dootuñ leen xalam duñ leen jàppee jëf duñ am njëriñ lu dul ci yéene ya leen lal innama al amalu binniyaat mu ni mel li yàlla wax innama sadaqaatu lil fuqaraa sarax muy asaka ñi topp ci innama rekk lañ ko war a jox innama sadaqaatu lil fuqaraa wal masakin balaaye ja hmm? kon innama al amalu naka jëf yi binniyaat yi ñu ngi leen di xalamee ci yéene yi lan la ci borom jublu jëf yu borom jublu ci lu baax mooy tax mu am ca mbaax ñàkk ko cay jublu moo ko koy ñàkkloo loolu nag jëfi diine yëpp la maanaa tey ji su may julli tisbaar lii wane ne lii tisbaar la du tàkkusaan yéene jël waaye lii taxit ñu fay ma ca mooy ma jëblu ca yàlla rekk bu dee jëfe àdduna nag xëy na sax du ajo yéene mm-hmm. waaye yéene ya dana ko toxalee ci aada nag mm-hmm. yóbbu ko ci jaamu yàlla mm-hmm. kii lekk parce que dafa xiif rek kooku amut yool la amut bàkkaar waaye su jubloo dëgëree ci lekk ga ngir mën a jaamu yàlla kooku lekk ga dafay jóge ci dagan nekk di jëf joo xam ne dañ ko ca yool te lu dagan mooy loo xam ne duñ ca yool duñ ca bindal bàkkaar wa jaizan mhm. euh, ma qabila al amrayn loolu sax mooy ci wàllu xukmu aqli waaye ci xukmu char mhm. aqsaamu xukmi charci xamsatun turaam fardun wa nadbun wa karahatun mhm. xaraam thumma ibaxatun fa mamurun juzim fardun wa duna aljazmi mandubun wa simdu nahyi makruhun wa ma xatmin xaraam madunu wajhayhi mubaaxun mazunu wajhayi luñ digalee ñaari anamam yi mm-hmm. mu baax loo xam ne baga ak def ga ñooyam mm-hmm. waaw mm-hmm. waaye ba ngay lekk mbaa nga ne ah, xarama nelaw yéene ci mën a teel a jóg fajar yéene ci mën a teel a jóg pour jul bu ma jul ma julli nelaw yooyu jógee ci amal dunyawi jëm ci amal diiniya mm-hmm. yusaabu alayha mm-hmm. wa innama li kulli imrin xamal ne ñeel na cam su ne mm-hmm. maa nawaa lam jumla ji nag ndax dafay feddali jumla ji ko njëkk wala jumla ju temmu la daal maanaam jumlay boppam la borom xam-xam yi wuutee nañ ci dafa ne innama al amalu binniyaati ba pare ne wa innama li kulli imri'in ma nawa am na ñu ne dafay feddali jumla ja la rek am ñu ne déedéet jumla ju sosu la ndax dafa bokk ci qawaid eh, yi ñu yi ñuy tudd mooy icmaalul kalaami awlaa min ihmaalihi mm-hmm. wala alkalaamu awlaa alkalaamu ala tasisi awla min xamlihi maanaam xamlul kalaami ala tasisi awla min xamlihi ala tawkidi waaw wax balaa ñoo wax ne wax jële lay dimbale mu nekk waxi boppam moo gën a jaadu su fekkee mën naa nekk waxi boppam kay waxi boppam la su ko mënta nekk ñu ne kon wax jële lay feddali ñu ne kon wa innama li kulli imri'in ma nawa dafay yóbbu jëf ji ci wàllu yool bu dee innamal amalu bi niyaati dafay yóbbu jëf ji ci wàllu wér ak yàqu mm-hmm. buñ ne innamal amalu bi niyaati maanaam jëf mm-hmm. lii tax mu wér mbaam mu yàqu mm-hmm. mooy yéene su fekkee jëf ji yàlla tax jëf ja wér na su fekkee yàlla taxut jëf ja neen na loolu la innamal amalu bi niyaati di firi kon wane wa innama li kulli imrin ma nawa mu dellu ci yool maanaam duñ yool jëf ja lu dul su yàlla taxee su fekkee yàlla taxut jëf ja du am yool man kaana yuridu alxayaata addunya wa zinataha nuwaffi ilayhim acmaalahum fiha wa hum fiha laa yubxasuun ulaika alladina laysa lahum fi laxirati illa annaar wa xabita ma sanacuu fiha wa batilu ma kaanu yacmaluun moo tax jëf lum rëy rëy hmm. yéene jaay tax yool am ca hmm. xadis ju raglu yonentu sallallahu alayhi wax ne ñetti ñii la ñu njëkk xatte yowmal xiyaam hmm. waa joo xam ne dafa dee toolu xare ñu indi ko yàlla fàttali ko xamal ko xéewalam mu xàmmee ko wan ju amoon say morom def naa la nga bokk ci ñu ci bëri gën a bëri doole loo ci defal mu ne ko sama borom man xeex naa ci sa yoon bañ ray ma mu ne ko déedéet waxoo dëgg danga doon xeex rek ngir ñu ne diw jàmbaar la waxoon nañ ko ñu daal di yóbbu safara incha boole musal kon mu ngi doon jàmm mi ngi doon jihaad ci zahir mu ngi xeex ak noonu yàlla ci zahir dee ci eh, shahadatu mhm. waaye ci baatin moom yéeneem ji tagguk nit ñi la ci la ci jublu woon moo tax moom rek la ci am idhabu ila alladina kuntum turaunahum hal tajiduna indahum jazaa fa waylun lil musallin alladina hum an salatihim saahun alladina hum yuraun ñaareel bi mu ne waajoo xam ne dafa jàng xam-xam di ko jàngale jàng alquran ñu indi ko yowmal qiyaamati yàlla xamal ko xewal gim ko xéewaloon moom it mu xam ko loo ci def may na la xam-xam jox baat bu neex ngay jàng kur alquran mu ne ko mu ne man de xam lu naa xam-xam xamle ko jàng alquran ngir yow yàlla ne ko déedéet mm-hmm. danga xam lu woon ngir ñu ne boroom xam-xam nga rek mm-hmm. waxoon nañ ko da nga doon jàngal alxuraan ñu ah, neex baat mhm. waxoon nañ ko mhm. mu ne ñu daal di digle ñu di ko yóbbu safara yàlla insha allah musa moo tax kuy jàng rek na yéeneem nekk topp ndigalu yàlla mhm. ndax moo ne ko xamal faalam ak iqra boo ko defee it yéene ja topp di jëfee xam nga te yàlla tax yéene ga ca topp di ko xamle te yàlla tax bu yàlla taxee rek jëriñ mm-hmm. yàlla ju tax ja génnee rek dootul jëriñ mm-hmm. ñetteel ba mu ne waa joo xam ne yàlla daf koo jox alal mm-hmm. daf ko ci xeeti alal lépp ñu indi ko fàttali ko xéewal ga mu fàttaliku ko loo ci def nag mu ne ko yow sama borom man de ma yoon woo xam ne danga bëgg ñu dépenser ci alal lu dul dépenser naa ca te nga tax buur ne ko kadabta nar nga de walakinnaka faalta dhalika li yuqaala huwa jawadu mm-hmm. da nga doon def loolu rek ngir ñu ne waa ah, diwa tabe mm-hmm. faqad qiila waxoon nañ ko summa mm-hmm. umira bihi ñu digle fa ala wajhihi xatta waqiya fi naar ñu diri ko ci kanam moom ba ko safara incha allah boole musa kon li muy firi mooy jëf yëpp ñuy màgg li ñuy baax baax na ca yéene yàlla tax rek mm-hmm. jiitu ndegam julli la ndegam woor la mm-hmm. ndegam sarax la ndegam sàkko xam-xam la mm-hmm. ndegam umra la ndegam xamle la ndegam digle mbaax la ndegam tere lu bon la ndegam woote jëm ci yàlla la li jaam bi war a gën a sonne mooy fuglu yéene ndax lii gaar yéene dafa yomb ci ngisalu te doomu aadama nag nit la léegi nga ak ngisal gaar ko bu mm-hmm. mu wax ne aman yàqu déedéet mm-hmm. na tuub rek dellowaat yéenim defaraat ko mm-hmm. doomu aadama yi dafa naturel mu bëgg nit ñi tagg ko bëgg nit ñi yëg ko su ko yëgee ci jëf joo xam ne yàlla rekk a war a taxit rekk na dellowaat tuub waaw tagg moom duwul ne ñuy def rek a ko bëgg sax doomu aadama même su deful dara sax dafa bëgg ñu tagg ko yuhibbuna an yuhmadu bi ma lam yafalu kat ba mu ne yahwa thanaa mubarrizun wa muqassirun xubbu thanaai tabiatu linsaan waaw mu ne jàmbaar ak ki gàttañ lu ñëpp a bëgg ku leen tagg ndax bëgg tagg tabiay doomu aadama la waaye doomu aadama la bi mu tuddee nag ñaar yi mu tudd misaal misaal mi mu misaalee mooy hijratu gàddaay mm-hmm. mooy toxoo ci dëkkub yéeféer dem ci dëkkub lislaam mm-hmm. ngir daw ak sa diine mm-hmm. jihad gi nga xam ne eh, amut lu ko féetee kaw mooy jegeñu lislaam eh, yonentu sallallahu moom la lëkkale eh, maanaam moom la yàlla lëkkale na jihad ak gàddaay ci alquran mm-hmm. yonent yi wax ci yu bari mm-hmm. yàlla wax ne inna alladina amanu wa haajaru mm-hmm. wa jahadu jiital na sax hijratu alal jihaadi ak ni jihaad rëy hijratu góog nag ki koy def te yàlla rekk tax yonentu rek tax moo koy jëriñ hijratu li muy am am njëriñ li muy baax baax ki ko def fekk dafa am yeneen calcul yu jëm ci àdduna mbaa leneen du ko jëriñ hijratu nga xam ne baax na ba borom bu jogoon te yeggut sax yàlla mm. tàbbal yool ba wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila llahi wa rasulihi humma yudrikuhu lmawtu faqad waqaa ajruhu allah mm. hijratu goo nga xam ne du dagg feek buntu tuub daggut mm. te buntu tuub du dagg feek jant fenkeewut sow euh, rëy na bu mu ëpp te it fu ñu xatalee nit ci diineem wa man yuhaajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wa saa war na gàddaay fu mu dem ngir rawalee fa diineem dana fa fekk ak yatu li ko yàlla waxee hijratu googu li muy rëy rëy kat na fexe bu koy def na yàlla tax waaw ah, hijratu moom gàddaay dagg mukk am na ñu déggul nag xadisu laa hijrata ba'da al-fathi gannaaw bu ñu ubbee fatx bu ñu makka yonentu ne gannaaw fatxu makka amatul hijratu mm-hmm. ñu bëri foog amatul fekk déedéet amatul hijra jógee makka mm-hmm. ndax makka lu jiitu fatxu makka dëkkub yéeféer la woon mm-hmm. bañ ko ubbee nag mujj nekk dëkkub lislaam kon kenn dootu fa gàddaayi di jëm feneen ngir jublu gàddaayi dëkkub yéeféer mm. kon fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi képp koo xam ne gàddaayam yàlla rek a tax yonentu tax fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi na xam ne yàlla ak yonentu gis nañ lam def dana ko jëriñ dana am yoolub yàlla dana am ngërmande yonentu sallallahu alayhi xaaj ba mooy koo xam ne dafa am beneen projet ci gàddaayam mooy wa man kaanat hijratuhu li dunya yusibuha koo xam ne ni jóge na gaa ci dëkkub yéeféer ñëw ci dëkkub jullit yi waaye àdduna jum fa am na tax wax nañ ko ne ah Madina dee commerce ba dox na dina dee dëkk ba moom ñëpp a nekk ci jàmm Madina dee nanga Madina dee nanga mu ne ah kon koy xaar ma ñëw dem foofu foofoo dàq waaye yàlla taxut wala jigéen nag fa joo xam ne ni bëgg na koo takk ndaw si na ko ah fii gàddaayoo ñëw nag doo ma takk feeg yaa ngi ci dëkk yéeféer yi du nangu loolu rekk tax mu ñëw waaye duul bëgg gàddaay ngir ne yàllaa ko ko digal mu raawale diineem la mu la mu yéene rek lay am la mu yéene rek lay am am na sax ñu ci wax xisa ju wax ne am na ku gàddaaya ndax jigéen ju nekkoon Madina mm-hmm. waaye xëy na xisa ba wérut li am solo daal mm-hmm. mooy képp kuy def dara lu moo mm-hmm. na yéene ja jiitu dañuy wax ne jëf ñaaray tax mu nangu ci lislaam wenn mm-hmm. bu njëkk ba mooy yàlla tax mm-hmm. ñaareel ba nga defee ko ni ko yonantu defee waaw léegi nag yàlla tax ji yéene koy def defee ko ni ko yonentu defee woon jàng koy def mm-hmm. foog nga jàng xam mm-hmm. waaye nga yéene yéene jii nag bokkul ak yéene jiñ xam ci fiq mm-hmm. buñ ne la booy julli tisbaar li bokk na ci charte yi nga yéene ñu ne déedéet bokk na ci farate yi nga yéene imaam Malik yéene ci farata yi la ko boole yeneen boroom xam-xam yi ngir boole ko ci charte yi lu li wutale charte charte mooy loo xam ne fekk dikkut du wër waaye bokkut ci jëf ci yéene mooy loo xam ne su dikkut euh, maanaam ponk mooy loo xam ne su dikkut du wér te ci jëf ji la bokk xam nga jàpp bokkut ci julli waaye bu dikkut du wér jàpp charte la ci julli takbiratul ihram ci julli la bokk waaye su dikkut du wér ponk la ponk mooy loo xam ne ci jëf ji la bokk te su dikkut jëf ji du baax charte mooy loo xam ne bokkul ci jëf ji gaa mm-hmm. waaye su dikkul jëf ji lu baax yéene nag borom xam-xam ñii dañ ne farata la ñii ne maanaam ponk la ñii ne charte la mm-hmm. yéene jooj nag mm-hmm. bokkut ak yéene ji nga xam ne mooy tax sama borom yéene jooj mooy tax dana tax julli gi baax waaye am na geneen yéene muy ku tax maanaam yéene ñaar la yéene def nangam ak yéene def ko ngir kan yéene def nangam ji mooy yéene julli tisbaar yéene defal ko kan mooy yéene ji yonentu sallallahu alayhi wasallam di wax fi ñaari yooyu yëpp nag duñu leen wax ci kaw xol ci xol la nekk fas fas yéene julli tisbaar xol a koy def uh, am na ñoo xam ne nag balaa ñu julli nañ kebetu parce que yéene julli ñeenti rakk nangam nangam waaye yéene mahalluhul mahalluhal qalbu waaw mm-hmm. uh, mahall kenn du ko wax mm-hmm. ci aj nag la yonentu moom wax aj ba pare wax aj gi fas yéene mm-hmm. am na ñu ne dafa wax yéene jàmm ñu ne déedéet dafa bëgg nit ñi xam gan façon nga aj lay aj mm-hmm. dégg nga waaye yéene ci xol lay nekk mm-hmm. euh, borom xam yi nag wax nañ ne ki nga xam ne dafay sikk sàkk moom may nañ ko mu wax ko ko mu wax yéene ji ci kaw ngir daq sikk sàkk si fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها aw imraatin yankixuha da nga gis yenn nusxa yi aw imraatin yetazawwajuha ci yenn riwaaya mm-hmm. fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi mm-hmm.